di dëkkuwaay bu bëri ay jafe-jafe lool immeuble bu ñetti étage bâtiment bi ñu duppee bloc 49 di dund ay jafe-jafe ñàkkum ndox fan yilee mu di nag situation bu metti lool ba pax te askan wi mënuñu ko nangu tax rek ne la wootuñu ba yandoor mer ba futu lañ def ba tax ñu woote wàllu waa o ñëw nañ fi jël suñu compteur centrale bi nekk suuf bi ñu yëgal ndox bi après ñoom ñu wax ñu ne que HLM la ñu signé loon convention seen HLM di fay deux mille cinq cent par maison par an. te loolu ñoom ak HLM ñoo ko seq ñun yëguñu si dara. ça fait quatre ans yoo xam ne HLM fayu leen da ñu ñëw jël contrôle central bi. fan la ñuy root boo demee mairie ñu dàqal boo demee kër jàmbur ñu dàqal fuñ ko teg. fukki kër ak ñaar nga dëjjate teew bi yóbbu nga ne nu ñuy dundee. ñi ne ñi ci ëpp nag di doomu locataire yi moom yi le appartement atum 1970 ba léegi fi nga xamante ne sax fii la ñu màggee Adam si di ñëwaat ci détails yi nga xamante ne teg na ko fii moom ak SNHLM ngir ut pexe ci li waa mel. waa SNHLM convoqué ñu ñun immeuble yu nekk si koñ HLM Fass bi yëpp ak ñu nekk fas Payotte ba ñu demee ñu ne ñu waaw yëg nañu problème mu ndox bi léegi dañu bëgg wut solution. ñun ba ñu jëlee kàddu ñun waa bloc 49 ñu ne leen ñun de joxe nañu une avance de cinquante 000 waa Sen'Eau dañ ñu defal ay moratoire léegi dañoo bëggoon loolu ngeen gàddul ñu ko ngeen fayal ñu ko ñun xam nañu léegi dañoo war a fay bañu ñu fay compteur général parce que mooy yéegal ndox bi ñun loolu dinañ ko fay. ñu ne ñoom waaw mais seen waaw ba tey des na ndax dañ ne nañu def une demande ñoom am nañu benn aide sociale dinañu si dimbali foofu lañ toll ak ñoom. ci bloc 49 bi toll nañ ci fukk ak ñaari njaboot yi nga xamante ne amuñu ndox mu sell rawatina nag ci jamonoy tàngaay bilee ak bor bu toll ci 300 mille francs ci suñu koppar ñu war ko rek fay ngir ñu mën a jotandi ci boobule ndox.